الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunnaam ba bis penc yàlla ñu ci yàlla boole doomu ndey mbokk jullit ñi ñu ngi leen di fàttali di fàttali suñu bopp di leen ñaax di ñaax suñu bopp ñu taxaw ragal yàlla fu ñu munti nekk ndax ñu xam ne ci ragal yàlla boobu la ñu mën a amee teraanga àdduna ak àllaaxira yàlla ñu ko yàlla defal ñu xam ne ñu ngi ci jeexantalu koor mu nekk moment boo xam ne moment bu triste la ndax lan moo tax ñu ne moment bu triste la mooy boo amee sa gan mu ñëw gane si la nga koy séntu muy ñëw ngay kontaan di ko yàkkamti yàlla def mu indi ko ak jàmm may la nga fekkee may la wér kàttan ak tal nga ànd ak moom mu indaale ay xéewalam ak ay sëritéem nga dund ak moom ak loolu yépp bu gan gi di bëgg jeex bu fekkente ne am nga jeexital dëggantaan ci koor war nga am loo yëgaat sa xol li nga doon yëgee kontaante ak yàkkamti mu ñëw bu lay tàggu tam noonu la war a nekk contraire bi nga war a yëg li nga xam ne moom mooy tristesse ak xol boo xamante ne xol buy commencé di wéet lay doon doomu ndey yi mbokk jullit ñi wallahi azim diine islam mooy diiney dëgg diine islam mooy diiney dëgg ndax lan moo tax diine islam mooy diiney dëgg mooy yàlla moom moo ne diine bu mu reconnaître bi àdduna sosoo ba léegi mooy diine islaam inna diina inda allahi al islaam doomu ndey mbokk jullit ñi suñu maam aadama ba ci yonent yàlla muhammad ñoom ñëpp benn diine la ñu woote mooy diine islaam bi base diine bi nekk li nga xam ne moom mooy tawhid wéetal borom bi subhaanahu wa taala jaamu ko te bañ ko bokkaale ak dara moo tax ba parcole alquran lu mel ni surtun huud wala surtun shuara saar yu mel noonu yàlla di la nettal histoire yonent yi benn par benn ku ci yegsi rek lan ngay wax yaa qawmi ubudullaha ma lakum min ilahin xayru yéen sama xeet yéen ñu yéen yónni ci man ci yéen jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaale ak dara te loolu mooy firi laa ilaha illa allah kon yonent yépp loolu la leen yàlla yónni te ci loolu la ñu nekkoon ci loolu la ñu tegoon seen tànk doomu ndeyu bokk jullit ñi comme ni ñu ko doon waajalee ci koor doon jàng aayaat yi nga xam ne moom la yàlla annoncé ñu ci li nga xam ne mooy suratul baqara nekk aaya yoo xam ne yàlla daf ci woote woote ci ay yaa ayyuha yii mu ne yaa ayyuha naas yii mu ne yaa ayyuha alladina amanu def ci ay digle ak ay tere yoo xam ne buñ ci concentré woo dinañu dugg ci koor gi ci jàmm waaye bu ñu génnee ci koor gi tam dinañ xam fan la ñuy teg suñu tànk yaa ayyuha yooyu waxoon nañ ne doon na treize fois la ko yàlla war ci suuratul baqara mooy saar bi mu farataalee koor si su njëkk yi daf cee woote tàggat la nan benn préparation ngay am booy dugg ci koor gi bàyyiwul sax ba si lekk bi nga war a lekk nan la war a mel nan nga war a lekkee waaye bi mu ñëwee ba septième aaya bi ci la woote farataal li nga xam ne mooy koor mu woo ñu gëm yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun mooy septième position mu desaat yeneen siis yu ñëw ci ginnaawam siis yooyu itam bu ñu ko jàngatee tàggat ko dañuy gis ne mu ngi ñuy préparé bu ñu génnee ci koor gi ban comportement la ñu war a am doomu ndeyu mbokk julli nii taxawaay sa sahabatul kiram moo doon ban taxawaay ci koor ñoom de ñoom la yàlla gërëm ñoom la yàlla gërëm de ci bi ñuy dund radiyallahu anhum wa radu anhu loolu ñoom ñoo ko mérito keneen ku dul ñoom rek rahimahullah nga leen di ñaanal yàlla na leen yàlla yërëm parce que wóoruñu à cent pour cent ndax yàlla gërëm na leen dañuy am njort bu rafet rek waaye sahaaba yi moom bi ñuy dund ñoom la yàlla gërëm ci seen dund waaye xool leen position bi ñu am ci ci weeru koor ñun nga xam ne wóoruñu ndax yàlla gërëm nañu wala gërëmuñu ndax mooy méngoo nañu seen seen position ak ñun suñu position ndax ñoom tey ñoom ñoo waroon am oyof ci jaamu yàlla ñoom ñu yàlla garanti wala ñun nii ñoo war a am dëgër laay ci jaamu yàlla ñun nii yàlla garanté gul ñun ñi wóoruwul ndax garanti nañu wala garanti wuñu kon doomu nday mbokk julli ñi sahabatul kiram bu ñu daan jëpp dëgmal li nga xam ne moo weeru koor ba dugg ci ba génn six mois yi yëpp lu ñuy ñaan mooy yàlla nangul leen li nga xam ne mooy koor gi amuñu beneen yitte parce que ñoom xamoon nañ ne àdduna du dara yon saa salaam do ànd nag sahabatul kiram gis benn mbaam boo xam ne bu dee la nëpp ba yàqu mu leen lii lan la leen di jox lii ndax amati na njëriñ saxaa saxaaba yi na ko déedéet ndax so ndax borom ndax borom soxla na ko léegi mu ne borom di soxlaatu ko léegi moo tax mu sànni ko fii ci ci sëg yi mu ne leen mbaam bii de ci yàlla moom moo gën àdduna mbaam boobu nga xam ne dem na ba soxlaatuñ ko ak mend beeg ak yooyu yëpp yoon saa salaam ne moo gënal yàlla àdduna yàlla wax ne àdduna bu ko dayoon ni laaf yow yéeféer du fi naan ko kaasu ndox waaye àdduna jaar-jaar rek yàkkamtiwul kenn ñun ñëpp dinañ dellu ci moom kon moo tax moom yàkkamtiwuñu ñoom ñi seen dund garanti ñoom ñoo amoon taxawaay bii bu weeru koor passé six mois ñu koy ñaan yàlla nangul leen li nga xam ne mooy koor gi parce que bu leen ko yàlla nangulee benn weeru koor nga xam ne guddi laylatul qadr mu ngi ci yàlla nangul leen ko wallahi raw nañ quatre-vingt-trois ans lu moom lu gën quatre-vingt-trois ans kon ñoom xamoon nañu li nga xam ne moo nekkoon ci koor gi suñu rombee six mois yi lu ñuy def six mois yi stop yëpp dañuy ñaan yàlla mu may la ñu fekkeewaat beneen weeru koor gi ñoom lii moo doon seen taxawaay saxaabatul kiram ndax xamoon nañu sens bi nekkoon ci li nga xam ne moom mooy weeru koor ñun nag xëy na suñu génération suñu jamono seytaane mi nga xam ne moo waral tey sax xud xudba bi ñuy xudba moom am na taxawaay boo xam ne ndeysaan day ñëw di ñu gëm gëlëmloo jël àdduna bi pentur ko ak ay lem waaye li nga xam ne moom mooy kaani rek moo nekk ci biir nañu góorgóorlu bu baax a baax ñu xam ne seytaane daf ñuy nax ñu góorgóorlu jàppaat suñu diine ñu xam ne liy neex ci àdduna lu tuuti la ndax dafay jeex dafa éphémère waaye li ñuy xaar àllaaxira moom mooy gën ñu ngi koy jàng chaque jour saa bu boo jàngee safa ak witr si safa bi di nga jàng sabisma sabisma rabbikal a'la te di nga fa jàng ba surunal xayaata dunya wal axiratu xayrun wa abqa allahu akbar yàlla ñu yàlla may ñi nga xamante def ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel àllaaxira waaye dañuy bàyyi xel li nga xamante ne ni moom mooy seen diggante ak seen borom ndax ñooñu rek mooy ñi nga xam ne ñoo ñu mucc yàlla woo ñu ci alquran mu woo ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm yàlla mu ne yaa ayuha allazina amanu udxulu fi silmi kaafa wala tattabiu xutuwaati shaytaan doomu nday mbokk julli dugg nañ ci weeru koor yàlla may na ñu fekkee ko def nañ ay jaamu yàlla wu baax ay ibaadaat yokkaat suñuy jaamu yàlla amoon habitude boo jullee gee ñibbi sa kër waaye da ngay toog naafila waat sarax yi di dàqante comme tulleeg màlli jëf ju baax yi xol yi tàppe nit ñi ñëpp nekk si jàmm ngan la waaye nañ continuer loolu ba bu ñu génnee si koor gi nañu dugg si diine bi kaafa ñun ñëpp yàlla bu ne asilmi udxulu fi silmi asilmi mooy firi fii islam nañu dugg ci islam kaafatan comme niñ ko nekkee woon ni ci weeru koor gi waaye wala tattabi xutuwaati seytaan bu ñu topp mukk li nga xam ne moom mooy tànku seytaane bu ñu topp paawu seytaane yi ndax moom innakum lakum aduwun mubin suñu noonu la bu ñu déclaré yaakaar naa lii prévention la ku ñu avertir la aaya bi moo sës rëkk ci aaya bi yàlla farataal li nga xam ne moom mooy weeru koor ci woote yi mu woote bi mu ne ay yaay bi si ne amoon kutiba alaykum kutiba alaykum siyaam dawal ay aaya dawal ay aaya muy woowaat nit ñi di woowaat ñi gëm aaya bii la ci teg loolu mooy lan mooy ngallaawaay bu ñu jugee ci koor gi nañ am comportement bii seytaane de dañ ñu ko yeewaloon ci weeru koor gi takkal ñu ko jëngal ñu ko teg ko fële bàyyi ñoog suñu bakkeen gii moo tax tey jaamu yàlla bi yomb ñu mun di ko def ni ñu ko sentiree waaye buy weer bi di feeñ buy weer bi di feeñ nga xamante ne li ci des moom mooy waajal muurum koor ak dem julli ji ci jamono boobu noonu nga xam ne jant bi soo na nga xam ne tak tak biir ci lay jeex ndax julli idul idul idul fitri ak idul afqa am na différence ci takbiratul takbir yi ñuy def bu weer bi feeñee ci wàllu korité nga xam ne dañu jëm ci korité ci lay takbir yi tàmbali allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ci lay tàmbali ba kañ ba jant bi di soowaat maanaam 24 heures rek lay def diggante timis bi jant bi soowee ba jant bi soowaat waaye bu dee idul atqa muy feetu tabaski moom takbiir mu ngi tàmbali bi weer bi feeñee fukki fanu tabaski yi fukki fan yooyu yëpp dañuy takbiir ba tabaski jot ñuy takbiir bu tabaski passé ñu def ayyaamul tashriq mooy ñetti fan yu toftaloo si si tabaski yooyu yëpp dañ koy takbiir su jeexee ci lay takbiir bi di jeex kon lii la yonent bi saa salaam jàngale ñu xam ne loolu bu tàmbalee ba ñu feete feet bi ba jant bi soo seytaane libre na moo tax nga gis ñu wooroon ñëpp di yàq seen koor ci dem ay soirée ñu wooroon ñëpp di yàq seen koor dem si ay plateau yoo xam ne amul benn njëriñ boo moytu si jour korité boobu la ñuy yàq jëf bi ñu jëfoon yëpp ci weeru koor gi doomu day mbokk ji lañu bàyyi xel loolu seytaane ku am doole la te ku ci nekk ci ñun xam na fan lay jaar ci yow yàlla daf ko may xam-xamu nafs ku mu xencu rek dina xam ne kii fii laa ko war a jaar am na koo xam ne wóor na ko ne mënu ko jaar ci njaaloo am na koo xam ne wóor na ko ne mënu ko jaar ci bokkaale am na koo xam ne wóor na ko mënu ko mënu ko jaar ci bañ a julli waaye day ñëw di ko créé loo ay mbir yoo xamante ne diine bi yonent bi xamu ko woon di ko def loo parce que xam ne dafa xër ci diine foofu la koy jaar moo tax du xeeb kenn ci ñun te lii mission mooy lan mooy fexe ba yow mal xiyaam lu ëpp si ñun na dem safara te wallahi sax gañe na yàlla moo ñu ko ci alquran iblis li mu doon wax na doon dàgg santeeg yàlla di ko njort waaye dëggal na ko dëggal na li mu doon wax tey preuve bi mooy lan nañu xool suñu suñu entourage rek nañu xool ne àdduna bi doxee rek nañu xool benn endroit boo xamante ne fukki nit daje nañ fa ndax fukki yëpp dinañu boole di àndandoo jaamu yàlla ndax xaaj bi sax dinañ àndandoo di jaamu yàlla tey suñu jàkka yi mooy nekk nii ay këri kër wër ko wallahi jàkka ji mënul fees lan moo tax te bu ñu woowee naafi la jàkka ji fees dell ngay sàggane say farata di di góorgóorlu ci ay naafi la loolu yaakaar naa ko gën a réer ci diine bokkul kooku kooku bokk na ci yàlla li mu gën a bëgg si ñun mooy ñuy taxaw si suñuy farata li mu gën a bëgg si ñun mooy ñuy julli si ñuy julli julli juróomi ci waxtoom di ko julli ci mbooloo bi en tant que góor yàlla loolu la gën a bëgg si ñun yoon saa salaam yàlla laaj na ko lan nga gën lan nga gën yàlla laaj na yoon saa salaam lan la yàlla gën a bëgg mu ne julli ci waxtu bi lan la yàlla gën a bëgg mu ne julli ci waxtu bi ñu laaj ko ko ñetti yoon muy tegle benn benn benn réponse bi julli ci waxtu bi biñ ko laajee ñeenteel bi mu ne koo xam ne dafay rafetal li nga xam si diggante ak ay waajuram nga xam ne kon julli ak rafetal say wayjur ñaari yooyu benn mënul dem bàyyi moroomam képp kuy julli di sàggane say ñaari wayjur xamal ne sa julli boobu dañ la koy pakateel sànni la ko yàlla bëggul li gën a garaaw li gën a garaaw sax mooy sa xeet jaamu yàlla yépp ndax yàlla lu mu wax lu leer la fu mu ne ubudullaha wa bil walidayni ihsana la siy teg da siy teg wax boo xam ne ñoom ñaar ñooy ànd comme ni ngay jàngee aatu zaka aqimi sala wa aatu zaka julli joxe azaka nu ñu kolantee noonu la jaamu yàlla ak respecté say wayjur àndee nit ki buy jaamu yàlla na fi dàq jaamu yàlla te fekk muy dëngee ay wayjuram yàlla soxlawul li nga xam ne mooy jaamu yàlla kon lii nii nekk na mbir moo xam nañ ko bàyyi xel te seytaane ci yi lay dox yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla xir ci boppam aquli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum lisaal muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim astaghfirullah astaghfirullah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahaabi wa wala ñu ngi sant yàlla doomu ndey yàlla mu ngi wax ci alquran mu ne alcheytaanu yacidukum alfaqra wa yamurukum bilfaxsha wallahu yacidukum maxfira minhum wa fadla wallahu wallahu waasi wallahu waasiun alim doomu ndey mbokk jullit ñi yàlla mu ngi ñuy wax ci alquran mu ne cheytaane de moom mu ngi ñuy xiirtal ci def ay ñaawteef cheytaane de mu ngi ñuy xiirtal ci def ay bàkkaar waaye yàlla de mu ngi toog ci palaasam duñu xaar ak ay jéggal yoo xam ne jéggal yu kawe la doomu ndey mbokk jullit ñi kii mooy suñu borom kii mooy ku ñu yéene àjjana kii mooy ku ñu bëgg kii de moom moo jël doomu aadama teral ko ci bindaa foonam yi wala xadd karab naa bani aadama ndax doomu aadama teral na boppam ndax doomu aadama teral na boppam question bu mu war a posé la doomu ndey mbokk jullit ñi yàlla mi la bind xam la xam sa bopp xam sa xam xam xam sa kanam xam sa ginnaaw xam sa lépp bind la wàcce la si kaw suuf pour benn mission kese nekkul dix nekkul fukk nekkul nekkul nekkul nekkul benn mission kese moom moo tax yàlla bind la mooy na nga ko jaamu te wéetal ko si jaamu boobu yow doomu aadama bi nga wàcc si kaw suuf féetéerul di ànd ak seytaan mi nga xam ne moom yàlla daf ko bindoon teral ko yëgal ko ci malaaka yi mu daal di wedd li nga xam ne mooy yàlla ndax rëy tey seytaane boobu la ñuy topp moom la ñu préféré te yàlla mi ñu bind duñu wërsëgal yàlla mi nga xamante ne moom moo ñuy wéral yàlla mi nga xam ne bu ñu jaaxlee ci moom la ñuy dem mu fajal ñu suñu aajo tey di yàlla moom la ñuy trahir ngir seytaane pour lan yàlla indil ñu xéewal ñu xeet yent yàlla muhammad ramadan indil ñu xéewal laylatul qadr nga xamante ne munoo am guddi bu gën guddi boobu jaamu yàlla ci benn guddi mu gën 83 ans 4 mois yàlla bëgg nañ doomu ndey nañu góorgóorlu bu baax takkaat suñu ndigg bu ñu jàppee ne koor gi jeex na rek acca dañuy delluwaat ci foobeeg caaxaan bi ku def loolu perte nga wallahi ku def loolu perte nga nit ki nu muy xamee ne jaamu yàlla am yàlla nangu na ko mooy jamono bi nga xamante ne nii bu génnee ci weeru koor dafay am diplôme bi nga xam ne mooy taqwa ak taqwa mooy diplôme bi nga xam ne lu muy firi moom mooy nit ki dafay ay santaane yàlla kenn kenn kenn talaay kàttanam waaye lépp loo xam ne tere yàlla la mu daal di koy bàyyi sori ko lii moom mooy li nga xam ne mooy ak taqwa lii mooy taqwa de mooy santaane yàlla yi def ci sa kéem talaay kàttan fos foofu dañ ciy rawante am na koo xam ne wér na am na koo xam ne wérul am na koo xam ne buy julli dafay taxaw am na koo xam ne mënul taxaw dafay toog am na koo xamante ne mën na lii morooma mënul lii moo tax kéem talaay kàttan la ñu def suñu jaamu yàlla fi nga xam ne fii la sa doole yem waaye tere yi amul mënuma bàyyi bii yàlla waxul sax bàyyil tere yi soril tere yi la wax wala taqarabu ñun dañoo miin rek wala taqarabu zina waaye yàlla am na aay bu mu dajalee bàkkaar yépp wala taqarabul faaxishata ma zahara minha wa ma batan moytalu moytalu ko leen bàkkaar yi nga xamante ne bu ñëwee daf leen di yóbbee ci li nga xam ne moom mooy musiba kon bàkkaar dañ koy sori balaa ñu koy balaa ñu koy bàyyi buñ la nee bul jege néeg bii mooy bul dugg ci biir kër gi bul jege néeg bi mooy bul dugg ci biir kër gi ndax boo duggee ci biir kër gi rek jege nga néeg bi kon bul jege lañ la wax bàkkaar yi yàlla nañu yàlla taxawal dëgëral ñu ba ñu mun di sori li nga xam ne mooy bàkkaar yi doomu nday mbokk jullit ñi seytaane daf ñuy war ndax liy wane ne seytaane daf ñuy war yàlla moo ñu ko wax ci alquran ci suratul maida ci côté jeexital bi discours bi nga xam ne iblis daf koy def biir safara discours boobu ñun ñëpp war nañ ko jàng mu ngi ci alquran te gëm nañ ne alquran li mu indi yëpp dëgg la képp ku weddi benn aaya ci alquran weddi nga alquran bi yëpp te weddi alquran moom mooy nga xam ne génn na ci diine bi yàlla nee na bu bu bu nit ñu war a duggee safara dugg safara ba pare yàlla dafay indi seytaane nii exposé ko mu mel ne ku ñëw ci concert contraire bi mooy am àjjana tamit ndax waa àjjana bu ñu duggee àjjana bu ku ci nekk am sa place ñi jàng alquran seen niveau yéeg ba ñu yéeg fi ñu war a yéeg ba ñu nekk ci bànneex yàlla dafa leen naan am na lu des am na lu des de luy la moo des mooy dollent bi ma leen war a dolli mooy lan yàlla génne li nga xamante mooy kiiraay bi doxoon suñu diggante ak moom ñu gis ko fang waaw ni ma leen di xoolee nii ngay xoolee noonu borom bi subhanahu wa taala ak taaram mu rafet loolu ba dàq àjjana ñu koy xool ba fàtte sax xéewali nekk biir àjjana ñooñu ñooy waa àjjana yàlla nañu ci yàlla boole waaye waa sawara iblis dañu indi nii exposé ko day tëll rek yuuxu bi tàmbali lan lay nit ñi di yuuxu lu ñu dal tey yaa ñu ko yóbbee yaa ñu indi lii yëpp lii yëpp yaa ñu ko jàppee terme bi uti seytaan di utiliser duñ ko wax ci mbooloo bi sax waaye li ci gën a am solo mooy daf ñuy daf ñuy daf ñuy trahir lu mel ni dimbali leen ma bu leen ma sonal noonu lay seytaan tàmbalee kàddoom parce que day day dëll rek ni ñuy commencé yuux mu ne leen bu leen ma sonal amul kenn ci yéen koo xamante ne li mu nekkee nii tey man am naa ci virgule yàlla daf leen woo ci njéggal yàlla daf leen woo ci dugg àjjana yéen ngeen bàyyi fi loolu ñëw topp ma te neexaluma ci kenn la preuve en est que nañ ko xool suñu bopp buntu jàkk ji de amul ko fi taxaw di dagg guichet guichet bu fi nekk di dagg di dagg ticket amu fi de entrée gratuite la yamu ci noddukat bi sax mooy mooy nodd di la neexal nan la ay ala solaa kaay ci julli gi yamul ci kaay ju julli ay alal falaa kaay ci dugg àjjana gi kaay ci texe ndax ku ñëw ku ñëw julli si julli buñ la ko nangulee nga dugg àjjana allahu akbar moom iblis nag nañu xool ay place am ay ticket cent mille ay ticket deux cent mille ay ticket un million un million am na fi koo xam ne day jël day jël day jël espace su dix personnes moom mooy fay un million yi pour mun a am benn table boo xam ne dix personnes ñoo fay toog ci ay caaxaan moo tax wax na dëgg moom seytaane bu leen ma fonto man li ma yor dama ko doon jaay ngeen ñëw doon ko jënd kon tey bu ma kenn yedd falaa talu mu nii walu mu anfusakum bu leen ma yedd yedd leen seen bopp tey ni ñu leen di dumawee noonu lañ may dumawee man ni leen di yàlla di lakkee noonu la may yàlla di lakkee kon bu leen ma yedd yedd leen seen bopp li du trahison est-ce que loolu lañ doon gëmloo fii si àdduna wallahi seytaane gëmloo wuñu loolu si àdduna ndax bu ñu waxoon loolu mu leer nañ ne ah xanaa yaakaar naa ne duñ ko topp de laa yaakaar wala bu ñu leeraloon lii discours bii nii mu wax biir safara